lu sa teewaay ci assemblée di la wax bienvenue euh, di nuyu say collaborateur di nuyu ñëpp nag xam naa ne lim bi dina ma jafe wante maa ngi nuyu madame le ministre Anta Sarr nga xamante ne benn nit bu la bëgg jar na daw ba dee ndax téeméeri nit yu la bañ te maa la bëgg maa la yëg rek a koy fay Anta maa ngi lay nuyu euh, di la ziar di wax ni monsieur ministre rafet lu nañ rencontre bi nga def ak député yi muy les députés femmes mais mu jaare ci la commission santé et affaires sociales euh, rencontre boobu déclenché nañu bëri par rapport à nos requêtes yi nga xamante ni moom lañ amoon au niveau de nos respectives villes wala cités man euh, énuméré woon naa ci yu bëri yoo xamante ni ñu ngi gis solution yi wax dëgg yàlla gis nañ ni dugg nga ginnaaw raay ak Promoville dugg fa lamp yi lañ ca waroon a am yokk nañu ko sax nag loolu rafet lañu rafetlu nañu ko loolu itam bokk na ci loo xamante ne dugg na toujours ci suñu waxtaan ñu ciy sant bu baax sa directeur ci liggéey bu rafet bi di wax ni monsieur le ministre amaat naa beneen requête boo xamante ne pour ginnaaw raay noor la monsieur le ministre dafa am foo xamante ni fa pavage bi yemoon bi fi président Abdoulaye Wade nekkee wax naa ko keroog xeer ya fa mu tege woon dañu koo yëkkati delloo ko te waroon ñu dugg biir ginnaaw raay noor monsieur le ministre ñun dëkk lañ soriwuñu fii nga xamante ne mooy dakaar moi je que su fekkente ne am na lenn loo a defal mooy ñu pavé yaatal ba gën a rafet ginnaaw raay soxla nañ ko euh, monsieur le ministre couverture maladie universelle am nañ ci soxla. parce que lu tax dëkk bu jege Dakar lañu mais boo ko dee seet mun nañu jàppee sax euh, li li euh, honorable bee di bañ ruralité mun nañu considérer des gens des ruraux parce que tellement que dañu enclavé ba nga xamante ne ñu si bëri du ñu xam ni foofu noonu dëkk moo nga fa donc je pense que ñu ubbil ñu parce que terre bi daf ñu tëj defal ñu pavage ñu mun a génn Dakar loolu baax na si sa si sa programme yi nga yore ñoo ngi la koy ñoo ngi la koy dénk euh, ci euh, couverture maladie universelle aussi euh, ñoo ngi dëgg nga dugg fa parce que école yi ak précarité bi fa nekk ak promiscuité bi suñu toujours ñu ngi ci hôpital yi hôpitaux yi te dañuy am toujours problème ñun dañuy wax rek ni que ni nous sommes de banques ambulants les députés parce que toujours dañuy dañuy dañ leen di dimbale te loolu bu ñu sañoon nga jàppale ci ñu ci monsieur le ministre ñu ngi wax ni euh, sa couverture maladie universelle nga extendre ko ba ci sénégalais de la diaspora yi parce que dañuy feebar ñëw ci dëkk bi euh, bàyyi suñu liggéey du ñu am sax ku ñu jël en en considération donc bu ñu sañoon nga ubbi ci benn euh, opportunité pour nga xam ni sénégalais de la diaspora yi Euh, dinañ ci mën a dugg moom laay wax léegi benn honorable député mu naan ma euh, bul tontu ma ni ko non du ma tontu parce que li ma ki ma jàkkaar lool moo ma gën a ñor tontu te comme ñun sénégalais de la diaspora yi dañoo sonn ba nga xamante ne suñu sañoon bu ñuy wax dañuy dégg parce que ñi ñu fal fawuñu on a gagné un département ñëw fii toog macha allah dañoo bëggoon bu ñuy wax ak ministre boo xamante ne Sénégal de diaspora am na ci tuuti ñu jàkkaarloo moom wax ko monsieur le ministre je pense que su ma waxee Sénégal waa diaspora yi rek dama lay ñaanal yàlla euh, sa ministère bi yàgg lool parce que ubbi nga euh, suñu diggante ak ministère ministre yu bëri ba tax tey ministre yëpp euh, jox ñu suñu cër yàlla na la yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup monsieur le ministre merci beaucoup présidente